delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di jaawu jàlloo mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm ñu bokk ñaan ko mu may ñu kendalug jàmm ba na noonu la ñuy tàllale suñu yoxo di ko ñaan di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayinna bisalaam wadxilna aljannata daaraka daaru salaam yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm yàlla nga ñu dottil say jàmm ya nekk fa yow yàlla nga ñu wërsëgal ñu dund ci jàmm yàlla nga ñu wërsëgal keroog bu ñu noppee ci dund bi nga may ñu wërsëgal ñu ñu tàbbi ci këru jàmm ba nekk fa yow di àjjana mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ba léegi ñu ngi ànd ak yéen suñu thème bi nga xamante ne mooy jamonoy vacances ba ñu nekk nii ñu war a géem a góor góorlu jël suñu tur tànk ya ñu yàlla dénk ñu war leen war a mën a yóbbu fa nga xamante ne mooy fa leen buur yàlla tabaraka wa bëgg ngir ñu yóbbu leen foofee yenentu bi sallallahu alayhi wa mu duñu wax ci maana xadis ne ñu doomu aadama de bu faatoo lépp may dagg dem des ñetti mbir ñetti mbir yooyu sang bi nee nañu lu dut mooy la nga xamante ne mooy sadaqatu jaariya sarax bimu fi bàyyi njaboot yi di ko sàmm di ko jëfandikoo waaye xam-xam bimu fi bàyyi euh, nit ñi di ko njëriñu walla mu bàyyi fi doom ju baax bi nga xamante ne jàngal na ko islaam jàngal na ko diine ba keroog doom jooyu saa yu mu jullee mu tàllal loxoom boroomam mu di ko ñaan ñaan boo xamante ne te ko naan yàlla nga jéggal samay ñaari wuyjur yàlla nga leen xaaree arjanna yàlla nga leen jéggal seeni bàkkaar yàlla arjana doon seen noflaay yàlla nga leen teeroo teeroo bi nga xamante ne danga leen di boole ci la aaya bi di junju ci njeexantalu fajir fajr yaa ayatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya fadxuli fi cibaadi wadxuli jannati bur yàlla tabaraka wa taala daf ne bakkan joo xamante ne dund na ci ngërmande yàlla bu waree génn àddina yàlla da koy teeroo aaya bi ne ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna yow bu sell ba matal langa nga dëxalanteg sa boroom waxtu bi jot na de irjii ila rabbiki raadiyatan mardiya génnal dellu fa sa borom sa borom na la sa borom kontaan na ci yow ndax danga doon bakken bu nangoo dundu ci ngir mande fa lépp la sa borom tëral mu neex la mu mitti ci yow dang ci nanga tënk yàlla ne la na nga sa cër yow jigéen bi doon nga kuy muur sa cër yàlla ne la yow xale bu góor bi demal jàng alquran nga war a doon sëriñu daara war a doon imaamu jàkk nangu nga doon jàng ak alquran kon yéen mi nangoo tënk seen bopp ci la yàlla gërëm bakken bu dund ci ngir mànde bur buur yàlla nee na àpp bakken woowu bu jotee yàlla da ko naan génnal dellu fa sa borom sa boroom gërëm na la sa boroom kontaan na fa yow ndax danga nangoo dund ci ngërmande sa boroom léegi nag bakken jooju bu génnee ci jëmm jooju yàlla da ko naan ci barzak fadxuli fi ibaadi kaay nga ñëw noppaleku ci sama jaam yu baax yi nga xamante ne maa kontaan ci ñooñu kay nga ñëw noppale ko ci sama jaam ñu baax ñi nga xamante ne gërëm naa leen nga dund dund barsax dund bu neex keroog bés penc mu ne la wadu xuuli jannati kay nga ñëw dugg ci sama arjanna mi nga xamante ne dama kaa réserver ña nga xamante ne ñooñu ñoo nangoo dund ci sama ngir mànde ba ma leen gërëm kon ndegem waxtu génn àdduna jot na kaay ñu rocc la ndànk ci jëmm jooju ba kenn jooju dem dugg ci ibadallahi saalihin moo tax yàlla ne ko faduxuli fi ibaadi kay nga ñëw dugg ci sama kuréelu jaam yu baax ñi nga xamante ne dama gërëm seen dundin nga nekk ci jaamu yàlla yu baax ñi nga xamante ne xamoo leen musoo leen gis nga dem fekk leen ci loole waaye day fekk bakken jooju dafa tënk boppam ci ngir mande yàlla fii ma yuhibbuhu llah wa yarda fala bakken boobu tënk boppam ci lépp lu yàlla gërëm mu doon lu mu sopp fekk bakken jooju tënk na boppam ci loole looloo war a tax bakken bi méditer la ko yàlla di woo nii woote bi keroog bis pénc yàlla ne ko waduxuli yi jannati kay nga ñëw tàbbi sama këru xéwal ba ma créel sama bopp ngir sama jaam yu baax ñi muy arcan kon yow mi jàpp sa loxo doom yóbbu ko ci daara alquran mu jàng téere yàlla mu jàng jikko yonent bi sallallahu wa sallam ak jikko waa kër yonent bi sallam kooku du fi nekk di taxawaalu bu dee doom bu jigéen kooku di fi nekk di def naka sudut noonu en tant jigéen waaye bu dee doom bu góor la kooku du fi nekk di yëkkati ngànnaay di ko jëmale ci nit ñi kooku du fi nekk di toroxal waa koñ ba mu dëkk ba bu tukkee sax dañ naan waaw diw sangam xanaa nekku fi moo tax keñ nit ñi noppaleku nañ boo tukkee kenn du la namm bul nangoo bokk ci ñooñu nangul bokk ci nga xamante ne tout tànk ya nga dëkkal ci koñ bi buñ la séenee dañuy daw gatandu la ndax nu mu dee dee dee da am sëri ci boo leen war a apporter ay xeetu tàngal ay xeetu set ay xeetu ay xeetu ñam yi nga xamante ne xale yi dañ la si dañ la siy naw dañ la siy namee fexeel nga amal nit ñi njëriñ moo gën ngay amal nit ñi eh, eh, nga di lor nit ñi bul dund sa géeru dund nga di ko def loraange bay tukkee ci yow di dem ci nit ñi képp ku ñu yare yarul ne islaam li warul doon sa taxawaay ci pénc bi moo tax yonent bi ne isa insaan doomu aadama di bu làqo in qataa anhu amaluhu illa min thalathatin jëfum yam doon jëf lépp ay dàgg ba mu des ñetti jëf sallallahu alayhi wa sallam di ñu jukkil ne ñu bokkoon si ñetti jëf yooyu illa min sadaqatin jaariya xanaa du loolu mooy sarax bi nga xamante ne day wéy di continuer sarax bay wéy di continuer mooy nga bàyyi fii loo xamante ne képp ku ko jëfandikoo mën na doon tool mën na doon garab ba nga jëmbët mën na doon teen ba nga gas moo doon mën na doon jàkka bi nga tabax mën na doon sajaada bi nga jënd ay basan ak ay moket bi nga yóbbu ci jàkk yi mën na doon taxawaayu jàkk boo xamante ne peinture yi xaw naa oos nga salaat ko mën na doon entretien bi nga xamante ne ah, def nga ko ba nit ñi xàmmee la ko yow it nga formé ci ay nit nga ne leen jàkka ji daal na suñu kër yi suñu néeg yi tilim waaye jàkka yàlla bi moom bu mu musa tilim na set wecc comme na ko gaay yu baax yi di defee su ko defee nga di toppatoo jàkka ji di ko entretien ci anam bu mu gën a jekkee ñuy nuyu suñu mbokk di vie Sonko depuis siti Alioune Sow ak soxnaam ak suñu bilaal bi di di euh, cheikh waaw taalibe Baye ñu ngi lay nuyu su ko defee ñu doon ay jëmm yoo xamante ne jàkk yi dañ koy taxawee waaye fàttewuñu tamit suñu grand bi di Omar Sall Omar Sall ñu ngi lay nuyu moom it dafa bokk ci ñuy entretien jàkk yi Omar Sall wallahi yàlla na leen yàlla fay ñi ñëpp ñu ngi dëkkee siti alin Sow ñuy nuyu waa gox boobu ak suñu am di jàmm ya fa nekk waaw loolu mu doon sadaqatu jaariya nga taxawee jàkk yàlla ci anam wi nga xamante ne képp fu ñëw julli day am envie pour julli fa waaw su ko defee imam maa ngi lay nuyoo imam Silla waaw ngi nuyoo imam imam Silla ak euh, naayib bi ñu ngi koy nuyu imam ratib ñu ngi leen di nuyu yal na leen yàlla fay wallahi mu doon sadaqatu jaariya boo xamante ne képp ku ko taxawee taxawaay yu mucc ayib su ko defee dina la fekk ci sa tiraay boobu noonu nga tir mu doon sadaqatu jaariya la lay fekk foofu waaye fàttewuñu suñu wuy jur di El Hadji Moussa Daouda ñaa moom it mu ngi cité Alioune Sow ñëpp ñu doon suñu njaati ñu baax ña fa nekkoon yal na leen yàlla fay yonent bi nee na sadaqatu jaariya day fekk képp ku ko fi bàyyi ci tiraay boobu nga tir ci sa bàmmeel ñaareel bi mooy aw ilmin yuntafau bi walla nga bàyyi fi xam-xam joo xamante ne képp ku ko jëfandikoo ci xeetu xam-xam ah, buur yàlla tabaraka wa bu la ko nangulee képp ku ko jëfandikoo xam-xam boobu dalay fekk foofu nga tëdd na nga installé la nga xamante ne mooy interna na nga jàngal nit ñi seeni diine na nga xamal nit ñi seeni doxalin nanga xamal nit ñi anam ji nga xamante ne mooy la di njëriñ fii ci àddina waaye bés penc mu doon xam-xam boo xamante ne lépp luñ fa fàggu ci yiw dinañ ko fekk foofu ñuy dem keroog bés penc waaye yow mileen ko xamal yiw bi dalay fekk foofu nga tëdd gannaaw bi ñu fi bàyyee xam-xam bu sel bindal téere jëndal alquran yóbbu ko ci daara yi jënd loo xamante ne xam-xam mën na fa war a meññee nga yóbbu ko ci daara yi moo xam ordinateur la moo xam tablet la moo xam lépp jum jumtukaay boo xamante ne xam-xam bu sell war na si war a mën a jebbee yóbbu ko ci internet yi yóbbu ko ci ñi nga xamante ne dinañ ko soxla su ko defee mu doon mu doon loo xamante ne mu doon euh, ilmun yuntafau bihi xam-xam boo xamante ne eh, nit ki war na si war a mën a bénéficier wu nit ki war na si war a mën a njëriñu su ko defee mu doon loo xamante ne aw ilmun yuntafau bihi xam-xam ba nit ñi di njëriñu xam-xamu diine moo si jiitu xam-xamu àddina bu sell bu dut lor nit ñi bu dut gaañ nit ñi lu dut nit ki dina dina ci gis boppam mu war si war a mën a njariñu xam-xam boobu la yonent bi joxoñ fi ne képp ku si njariñu xam-xam boobu da fekk ci sa tiraay boobee ñetteel bi mu ne ñu aw waladin saalihun yadu la wala nga bàyyi fi doom ju baax boo xamante ne dalay ñaanal yàlla dalay ñaanal yàlla na yàlla jéggal la yàlla xaare àjjana nee na doom jooju de mooy doom bi nga xamante ne yàlla dina nangu ñaanam te lépp lu mu ñaanal wayjur boobu yàlla dina ko ko yeggee foofu mu tidd waaye day fekk nga yóbbu sa doom ci daaray internat ba nga xamante ne fa la war a jàngee alquran nga yóbbu ko ci daaray internat bi nga xamante ne fa la war a mokkalee lu mu néew néew néew néew fukki saar yu mujj yeñ leen doon joxoñ ci alquran la tàmbale ci min suratul fil ila suratul naas la ko tàmbalee ci qul auzu bi rabbi naas ba keroog ngay àgg ci alam kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil walla bu dee da wàcc la ko tàmbalee ci alam tara kayfa ba keroog ngay àgg ci qul auzu bi rabbi naas mu doon fukki saar yu mujj yi ci alqur'an tey nag élève ba ñu yóbbu ci daara ji ngir mu jàngal ñu fukki saar yu mujj yi tey du ñàkk mu jàngal ñu juróom ñetteelu saar bi waaw juróom ñetteelu saar bi mooy huitième saar bi waaw keroog jàngal nañu septième saar bi tey dinañu jàngal huitième saar bi su ko defee mu des neuf ak dix huitième saar bi ci fukki saar yu mujj yi mooy suratul ixlaas sutul ixlaas ñu ne bu dee buur yàlla am na carte d'identité saar bi mooy carte d'identité am ndax jëmmam la fa wone wonewu fa kenn wonewu fa leneen du malaaka bam fa wone du yonent bam fa wone jëmmam la fa wone ngir ni mu doon kenn ak ci melokaanam yu kawe ak ci melokaanam yu sell yi subhaanahu wa kon tey suñu élève bi ki ñu yóbbu daara ji ngir mu jàngal ñu fukki saar yu mujj yi ci alquran tey huitième surat bi di suratul ixlaas moom lañ ñu bëgg a jàngal ci kattanu borom bi subhaanahu wa te saar bi mooy audu billahi min alsheytaani arrajim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot bokk na ci sababu nuzulu saar bi buur yàlla tabaraka wa taala keroog bam mu yenentubi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam kuffaaru quraysh yiifaru makka yi di waa quraysh dañoo ñëw ñu ne yonentu ne waaw yow de la ngay wax ci sa yàlla bi bari na lool te kenn mënut a comprendre la ngay wax ndax fii quluubihim maradun fa zaadahum allahu marada seen xol yi dafa feebar feebaru bokkaale yàlla nekk seeni xol feebaru jaamu xërëm moo nekk seeni xol yàlla gën leen si nuur ñu gën si taqrib yàlla gën a yokk feebaru weddi yàlla seen xol daldi am feebaru bokkaale yàlla musuñoo gis leer bugguñoo gis leer ba tax na ñu ne waaw nañ leen def benn délégation convoi dem ci Muhammad laaj ko ñu ne ko siffa lana rabbak dañoo bëgg nga melale ñu sa borom siffa lana rabbak dañoo bëgg nga màndargal ñu sa borom ndax ñun suñu yàlla ba ñuy jaamu ñu ngi nii kii laata la tudd kii manaata la tudd kii mu ngi tudd uzza waaye yaa ngi jàkkarloo ak suñu yàlla yi ñoom ñu ne seen xërëm yi mooy ñooy seen yàlla ñu ne yonent bi ne yow yaa ngi ni jàkkarloo ak suñu yàlla yi boo ko xoolee gis ko boo ko làmbee daj ko waaye yow sa yàlla kenn mënu koo gis kenn mënu koo xool kenn mënu koo làmb kenn mënu koo daj léegi dañoo bëgg nga wax ñu sa màndargay sa borom yàlla boobu nga ne ñu ñu wéetal ko dañoo bëgg nga wax ñu mooy kan ndegem kenn di ko gis kenn mënu koo xool ba ko gis kenn mënu koo làmb ba di ko daj léegi xanaa kon war nga ñoo wax sa yàlla nu mu mel màndargal ñu ko léegi ñu comprendre ñu xam sa yàlla nu mu mel parce que ñun suñu bos mu ngi nii kii laatal la tudd suñu yàlla yi la bokk kii mënaata la tudd ci suñu yàlla yi la bokk kii uzza la tudd ñu yàlla yi la bokk boo ko laalee daj ko boo ko xoolee gis ko léegi yow sa borom comme kenn mënu koo gis kenn mënu koo làmb kenn mënu koo daj léegi wax ñu nu mu mel mandarga bi rek lañ ñu soxla bismillah ñoo lay déglu yàlla ni jibril ne demal allahu akbar jibril daal di wàcc waaw ne ko nel sama yonentu bi xul waxal yow sama yonentu bi huwa moom ku ñuy laaj allahu yàlla la tudd ahadun kenn la kenn la amul keneen amul leneen lu rax fa moom qul wax len ne huwa moom ku ñuy laaj mu ngi tudd allahu yàlla ahadun kenn la waaw allahu yàlla dun mooy ki ñépp di soxlaal waaw yàlla mooy buur ba ñépp di soxlaal kenn na nekku fi kudut dinga nga soxlaal yàlla buur yàlla mooy buur bi nga xamante ne moom la ñépp di soxlaal te moom di soxlaal kenn allahu yàlla mooy buur bu ñépp di soxlaal bépp mbindaafoon bay dukkat ci kaw suuf si dina soxlaal yàlla waaw di soxla la nekk soxla la nekk fa yàlla lañu xamul dina soxla la nekk fa yàlla lañu gis dina soxla la nekk fa yàlla lañu gisul dina soxla la nekk fa yàlla amul dara luy dukkat ci kaw suuf si lu dut dina soxlal yàlla la nga xamante ni mooy soxlaam te yàlla soxlawul dara soxlawul lenn ci mbindaafoon yi bokk na ci màndargaam bokk na ci màndargaam yu sell ya mu nekkee moom buur yàlla tabaraka wa taala lam yalid du kuy jur du kuy meññ yàlla meññul kenn lépp la bind yàlla meññul dara te moo fi bind lépp moo fi créé lépp léppam jaamam lañu ñépp lépp jaamu yàlla lañ amul dara lu yàlla bokk ak mbindaafoon jalla waala la nit ñi di nekkee moo ko bind lal nit ñi mel moo ko bind lal nit ñi doon moo ko bind te moom bokkut ci dara la mbindaa foo melo walla la mbindaa foo nii nekkee mi yuwlat te amul dara lu ko meññ amul dara la jóge ko fa moom amul dara la bokk ci moom meññul dara dara meññu ko meññul lenn te lenn meññu ko te mu doon kenn koo xamante ne moo fi nekk di yàlla te bokk na ci màndargaam wa lam yakun lahu kufuwan ahad du jekk du yell du dagan du musa doon du musa am du musa nekk ilal abad mu am dendandoor walla mu nekk associé ak lenn te moom kenn la mbokk yi saar bi dafa am particularité boo xamante ne soxna Mari buñ koy xool dinañ gis ne saar bi dafa ubbeeku ahadun ñu tëjee ko ahadun saar bi qul huwa allahu ahadun neleen moom yàlla la kenn la nga ñëw ba keroog ngay jeexal aaya bi nga déggee ci ne walam yakun lahu kufuwan ahadun ñaari ahadun yi dañoo nuroo mbindin waaye bokkuñu maanaa waaw saar bi dafa ubbeekoo ci kennalu yàlla ñu tëjee ci kennalu yàlla ci diggante bi nag mu di fi wax la nga xamante ne mooy màndargaay nekkinam waaw muy buur ba tudd allahu waaye bokk na ci màndargaayam mu doon as-samad loo xamante ne amul dara la fiy nekk di dukkat lu dul am nga soxla ci li nekk fa yàlla mu doon buur boo xamante ne amul daray mbindaafoon bay dukkat ci kaw suuf si lu dul am nga soxla la nekk fa yàlla oxygène ba ñuy nooy ni jën yi nekk ci biir géej oxygène yañuy ñuy nooy foofu sànqaleñ ba nekk ci paxu melentaan oxygène ba muy nooy foofu yàlla koy ouvrir foofu kon bu téye oxygène boobu dara du baax ña soxla oxygène boobu dañuy loru kon boo gisee loruwuñu parce que dafa bàyyi oxygène boobu ñu di ko jëfandikoo kon yow mi ñàkk yow mi am yow mi yow mi xamul ñun ñëpp ñoo bokk soxla la fa yàlla te moom soxlawul dara la ci ñun mooy asamat bokk ci màndargaam amul dara la jóge ko fa moom mu di lu mu meññ waaye amul dara lu ko meññ moom du buur buy meññ te kenn meññ ko subhaanahu wa taala waaye nee na nag nel yéefaru màkk yi ne du dagan du musa dagan ba keroog bés àndandoor buy ànd ak man ci sama nguur te man kenn la dara raxuma ànduma ak dara ci sama nguur ahadun kenn la di cappaacole bi nga xamante ne amul dara li ma rax keroog ba yonentu bi waxee lii ku faaru yi ca lañu xam màndargayu yàlla ba yonentu bi di woote ngir ñu jaamu ko sallallahu alayhi wa mbokk yi bokk na ci la tax jullit bi war a wéetal buur bi tabaraka wa taala mooy nga xam ne yàlla mooy kenn koo xamante ne mooy cappaacolle ba nga xamante ne amul dara la ànd moom ci melokaanam amul dara lu ànd moom ci nguuram mu doon kenn koo xamante ne léppam jaamam lañ lépp lu mu bind jaamam lañu amul dara lu mu bind lu dut jaamam lañu moo tax mu di ñu wax ci alquran ne keroog bés pénc amul dara lay dikk fa man yàlla lu dut day doon jaam kese waaw jaam dong lay doon léegi-léegi nag ñu am xew-xew ju mag ñoo xamante ne dinañ ko xewle ci suñu xew-xew àddina yi waaye dañu naan mbokku kilifa sangam ñoo toog nii mbokku diw sangam ñoo toogee nii mbokku mbokku mbokku mbokk waaye keroog bés pénc ndaje bu mag boobu amul kenn ku fay doon mbokku yàlla amul kenn ku fay doon mbokku buur bi tabaraka wa mu ne ñu amul kenn kuy dikk fa man keroog bés pénc lu dul day doon jaam jaam dong lay doon su ko defee ñu xamee ko ni yonente bam ñu yónni sallallahu alayhi wa keroog lii la wax ku faaru mag yi mu ne leen yàlla bi ngeen bëgg ma jox leen na mu mel kenn la te yàlla la tudd te mooy allahu moo tax yàlla ne ko qul wax leen ne huwa moom mi ngeen laaj ngir mu wax leen màndargaam allahu la tudd waaw allahu yàlla woobu samat mooy ki ñépp soxlaal bokk na ci màndargaam lam yelit meññul dara meññul kenn wala mu yuulat te kenn meññ ko jógewul ci kenn tamit jógewul ci lenn tamit bokk na ci màndargaayam yu sell yooyu walam yakun lahu te du musa dagan te du musa doon te du musa nekk tamit lahu ñeel ko moom yàlla kufuwan àndandoor ba nga moo koy dimbali ci ay mbiram wala moo koy taxawee ci lenn déedéet yàlla du buur boobu moo tax mu ne walam kun lahu jaadut yellut mu am àndandoor boo xamante ne da koy associé ci ay mbiram mu di ki koy jàppale ku ci la mu nekkee ahadun moom kenn la moo tax ñu naan leen saar bi dafa tàmbale ci ahad mu jeexee ci ahad mbokk yi tey lii la leen Rewmi FM 97 andil ci waxtaanu suba waxtaanu fajar euh, waxtaan bi jeexul waaye dañoo yegg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi ñu war a jébbal béréb bi ñu war a tas xibaar yi saa ilina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir